aousubillah mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalatu wasalaamu ala rasulillah mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi nuyu ñëpp ñoo ngi jaajëfal ñëpp di jiital ci nuyu bi ak siyaar bi Cheikh Sidil Mokhtar ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu te mu ànd ak wér mbokk yi ñoo ngi fii nag ci daarul karim daarul karim nag suñ fi ñëwee waxtu wii di waxtu laylatul xadar ku ne xam na ne taxawaay bu am solo ñi ngi ko fi taxaw waaye rawatina Serigne Abdou Samad Mbacké mi nga xamante ni mi ngi fi amal taxawaay yu am solo yoo xamante ni daf ko fi amal fii ci makkaanam mboolem képp koo xamante ni ñëw nga fi rek di nga gis organisation bi nga xamante ni ànd nak ay taalim ànd ak bépp axlu mbàkke mën nañ ne tey ku fi ñëw rek di nga gis mobilisation bi nga xamante ni am na fii ci daarul karim waaye xam naa laataa loolu guddal dañuy jox sëñ bi ci kàddu tënk rek ndax day mel ni euh, bis bi ngi koy dundal comme ni guddi gi baaxoo dundale ndax day mel ni ñu ci bëri ah lii woon nañ fii nga xamante ni mooy barab bi ñu nekk muy daarul karim waaye fekk na boobu ku mel ni sëñ Abdou Samad mi mi ngi ko fiy dundal bu baax a baax a baax xam naa dañ koy dénk suñu micro ci wàccaay yi nga taxawaay bu am solo bi nga xamante ni am na ko waaye rawatina Serigne Cheikh Abdou mi nga xamante ni daa doon léppam doon wóolareem gis nañ ko mbokk yi gis ngeen ko noonu suñuy image ci taxawaay bu am solo bi nga xamante ni am na ko xam naa dañuy dénk suñu micro ba sëñ bi rek mu def jàngat rek si bis bi nga xamante ni tey ji bokk na si ñu koy taxawal fii nga xamante ni mooy Daarul Karim waa jawriñ jërëjëf ñu ngi lay nuyu di euh, joyal nuyoo bi jëmale ko ci toute la rédaction bu Touba Vision Euh, Daaru Karim gi ngeen ma fekk nag mooy benn dëkk kepp bi nga xam ne moom la sëñ ma mos a sanc ci àdduna du beneen xanaa buñ ko sancal gannaawam waaye bii rek la mos a sanc ndax histoire murit ku ko xam ku ne xam ne kër sëñ Touba nga ne kër sëñ ma Massamba nga ne mosta am moom kay dañuy bokk kër gi nga naan nekk sëñ Touba nga ne nekk sëñ Massamba nga ne dëkk bii nag mooy bi nga xam ne moom kese la sëñ Touba programme woon ci li ñuy wax programme de l'extension de la ville sainte bu Touba mooy bam mu ne sëñ Modou Moussa sancal tinoo di tindoo di sëñ Fallou sancal ndindi sëñ Massamba sancal Daaru Karim lu dut loolu mosta jéem a dem fenn mosta am kër mosta am dëkk mosta am dara fii rek bokk na ci mbooti dëkk bi nag xasaayit sëñ Touba yu bari yi ngay dégg ñu koy wax naan sept tonnes cinq cent te sëñ woy na lu ko fukk ca loo ci gisut ci téere yi sëñ Massamba sëñ Touba dana ko suturaal ko am na fullay ñëw ba ci pencum boppam mi fi lañ sut xadaay sëñ Touba yi loo ci gisut mi ngi suul fii muy dëkk bi nga xam ne ah, sëñ Modou Faty Khary kenn ci ay doomam yu mag moo ko féete woo woon moo fi nekkoon dëkk fi ba tey ay njabootam ñoo fi feeñal seen yéene di fi woote leelu xadar gi nga xam ne sëñ Modou Faty xaritam moom rek la mosa woote ci bis njabootam di ko yëngatu fii fi Daaru Karim Laylatul Qadr nag day lu yéeme ndax yàlla da cee wàcce alxuraan te alxuraan eh, yàlla wax ne wàcce na ko ci benn guddi inna anzalnaahu fi laylatil qadri inna anzalnaahu fi laylatin mubaraka wa bilxaqi anzalnaahu wa bilxaqi nazal mu mel ne problématique bu rëy dafa am ci jullit yi amut ak dégg bi yàlla ne guddi gi ci laa wàcce alxuraan kon ci genn guddi la ko wàccee ba pare alxuraan ci nekk Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu continuer ay at wopp fukki jëm ñaar fukki di wàcc mu mel ne ni nga koy firee mooy tey yow bu Touba Vision woon fukki vidéo dugal ko ci banque de données denc ko vidéo bi am na créé nañ ko mais mettre guñ ko en ligne bis bi ñu ko mettre en ligne mooy laylatul xadar bi nga xam ne nii ci la yàlla créé banque de données bi avec le temps nag progressivement lu xew yàlla wàcce ko loolu mooy bis bi ñu ko mettre en ligne li ma bëgg a wax mooy alxuraan texte sacré yi dafa bari bible moom la yi yenn nit ñi xalaat sax moom la waaye loolu ay texte inspiré lañ koy wax alxuraan nag texte révélé la yàlla moo ko wax ci gémmiñam jaar ko ci Muhammad mu jaarale ko ci làmmiñu Muhammad euh, euh, jaarale ko ci Jibrilu mu jaarale ko ci làmmiñu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon waxu yàlla la yoo xam ne yàlla moo ko wax texte révélé la dañ ko révélé Muhammad mu jotal ñu ko yeneen téere yi nag c'est des textes inspirés dañoo inspiré nit mu wax ko moo tax nga naan dégg ñu naan premier testament deuxième testament troisième loolu du wax yàlla alxuraan nag. damay faral di wax ne weeru koor wii guddig laylatul xadar gi ci yàlla wàcce te boo jaamoo yàlla benn guddi benn guddi ngay am waaye boo ko jaamee guddi laylatul xadar junniy guddi ngay am lu ëpp sax junniy guddi la yàlla wax may wax ne weer woowu li muy yéeme yéeme guddi laylatul xadar moo tax mu ala daw me guddi laylatul xadar nag lu tax mu ala daw mooy alxuraan ji ci wàcc moom la sëñ Tuubaa di wax ca weer wa naan yadal bushaaraati wal ayaati was suwari fashhad bi kawni abdal muhsini suwari weeru koor lay wax yow mi yàlla jox chance nga mën a am guddi gu mag gi alxuraan wàcc ca ak aayaam ya ak suuratoom ya yaadal bushaaraati bil aayaati wa suwari fashhad bi kawni abdal muhsini suwari inni uhibbuka ya shahra siyaami bila ghishin fa ahlan wa tarxiban bila adad daa yegg ba naan ko man sax maa la bëgg yow weeru koor te triché wu ma ci bëgg gi ma la bëgg kon bis boobu nga xam ne bu mosaan ñëw mu jàkkaarloog boromam di ko ñaan di ñaanal l'humanité tout entière mooy guddik laylatul xadar mooy xasida gam tàmbalee alhamdulillahi almujibi dil qadar man xassana fadlan bi laylatil qadar muaddiman li sha'niha fi dahri xatta gadat xayran min alfi shahri kon guddi gi liñ ci mën a wax xajut ci guddi ci la alxuraan wàcc te guddi gi mooy xarun min alfi te ci biir weeru ko la wàcc kon daal li ma la bëgg a xamal mooy guddi gi mooy lépp sëñ Modou Fall xëy dafa amoon fulay tànnut benn guddi màggalut benn guddi lu guddi bi di leen xadar mi yàlla na xeetu min alfi shahrin kon ci njabootam nga ñëw sëñ Cheikh jiite ko ñu bokk ci waa sañ ma sàmba di dundal dëkk bi metti woon na ci début bi waaye nag bis na que tey gis nga jumaay 200 million nekk fi kër yu macha allah nekk fi ñu def ko suñu dëkk dëkk fi kon dundal dëkkub sëriñ Touba bi nga xam ne ci Touba la bokk bis na ko tey Touba se nañ ko mu wër Daaru Karim te buñ koy def sodee na jumaa ji 7 kilomètres sëñ teg ay garde fuum ndax dëkk bi ñoŋ mu ne sëñ Massamba demal ca pegg bee sañ Fallou demal ca pegg bee sëñ Modou Moussa demal ca pegg bee kon loolu yëpp day delluwaat ci histoire mouridisme day delluwaat ci liggéeyub Serigne Touba day delluwaat nag ci baaxu Muhammad programme conférence bi nga xamante ni am na fi tey thème bi nga xamante ni macha allah Serigne Babacar mu amoon na ko fu mu jëm ci matière de communication mu doon loo xam mën nañ ne addina ñëpp loolu lañ war a waxtaane lu tax nga tàmm taamu thème wax waxloo sëriñ Serigne Babacar. wax xanaa bëgg ñu éveiller les consciences ndax euh, yàlla muy dogal dafa dogal ñun communication dañ koo xam di ci dox léegi nag. jaam bi boo ko bëggee dimbaleen doyatul nga yëkkati xaalis jox ko doyatul nga jàngal ko kese waaye da nga koy jàngal nu ñuy jàngee jàngal ko nu ñuy jànge sëñ Tuubaa bi muy ñaan yàlla mu jàngal ko nu ñuy jànge moo indi ca al ca mawaahi bu baat ba ñuy wax jawit reka yi am na feneen fu mu koy waxee naan ko wa nafsi zakkiha wahdi bi ahli zakkiha wahdi bi ahli day dellu ci jawit zakka yi jooju yàlla may ma xelum ma xam man yow yàlla sax bu ma la dee ñaan nu ma lay ñaanee yow yàlla bu ma la dee sant nan laa lay sante boo jàngal nit ki communication da nga koy jàngal nu ñuy communiquer ak communication luñ ci war a jël ak ñu ci war a bàyyi loolu moo nekkoon thème bi tey adduna bëri na luy yëngatu mel na lu jëm fenn jëm fu baax fekk na fu bon la jëm bëri na ñuy tuddoo lislaam te du ñuy jullit bëri na ni ko Babacar waxee ñoo xam ne sax ay imaam lañ leen tuddee te ca jumaa ja lu delloo gannaaw la diina la ñuy def jëw li ñu war a wax ci guddi gi xajut ci guddi gi maa ngi leen sant di leen gërëm jële ngeen jëf euh, Touba Vision ca kaw ca kanam asalaamaaleykum wa rahmatullah